asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi yéen ñi nga xamee ni rab da leen a topp di leen sonal màndarga yi lañ leen bëggoon a wax ku rab topp loolu nag bu toppee nit dina ko xam ci ay nelawam li ci ëpp dina ko xamit ci feebaram waaye dina ko xamit ci ay business am mooy yaakaar yu tas yeeg relation yeeg waaye li ci bi ci jiitu mooy di faral di gént lu bari moo xam nga gént yeewu fàttaliku li nga géntoon wala nga fàtte lépp wala it nga am loo ci fàttaliku wala doo ci fàttaliku dara waaye da ngay gis benn action rek nga xam ne lii ah nga ko loolu benn ngi ci parce que kenn ku nekk sarab am na sarab boo xam ne ni mënu laa nëbb li muy li muy gént tax yaa ko ëpp loo doole mu ngi la topp nag waaye koo xam ne ni nag moo la ëpp doole moom mun na pare li ñuy wax supprimer mémoire nga koy supprimer léeg-léeg dina la géntuloo ba nga gént lépp xam ko nga yeewu ñu supprimer lépp loolu seytaane bu bon bu bañ a xam bëggul nga conscient ci mbir yi daf la bëgg a gaañ wala mu def ci sa xol xol buy tàng mer ci lu dul dara xol buy tàng jër jër jër jër teew meloo noonu mosoo mel noonu mais ci at yi wala ci weer yi rek la la attaqué loolu boo ko gisee rek rab mu la topp wala fit woo xam ni da ngay jàq foo toll yaa ngi tiit bu ne leen da di dem jëli Cheikh Moussa rek seen fit yu tiit bu ne da xëy liggéey yaa ngi tiit te liggéey normalement dafa bokk ci ni war a sawar bëgg ko waaye da ngay gis ni dangay ngay tiit ci loo wurta tiit wala xel mu jaxasoo jaxasoo lool di xalaat lu bon rek nag xel mu ak xalaat lu bari xam nga xalaat lu bon ak xalaat lu bari loolu ku am rab da koy def day jàpp yaramu diis fit wuy tëf-tëfi naka noonu yaakaar yu tas lu mu dugg mu yàqu lu nit ki tàmbali du ko yeggale loolu boo ko amee rek mandargay rabangoog walla mu jël nit ki di ko tiital bu tëddee guddi du mën a nelaw bu baax bu demee bay nelaw mu tiital ko mu tëb wala mu bàyyi bay tëdd mu géntuloo muy saw sawlal ndeysaan fekk na da ko jox benn image ni ko yaa ngi ci bi fekk na ci lal bi la ne mu tuur ndox ba doyal jóg rek nekkate ndeysaan ci kaw lal bi la yàlla boo ko def kër jàmbur loolu dina métti trop te diis naka noonu it nit ki xam ne dañuy jël ay nelawam wala ñu sëf ko nelaw yu bari ñaar yëpp am na jël say nelaw doo mën a nelaw wala it ñu sëf la nelaw yoo xam ne nii du jeex vingt quatre heures sur vingt quatre mën ngay nelaw du jeex fekk seytaane laal na la bàyyi ci xel gént di yu doy waar gént xaj gént jaan gént nag gént mbooloo gént ndox gént di lekk gént yàpp gént ñu lay dàq gént di naaw gént ay armeel gént ay néew gént ay liir ak façon yu kenn ku nekk sa façon. Sénégal mbokki internet Kéwoulo TV maa ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen seen préféré Kéwoulo TV comme niñ koy defee saa su nekk tey nag dañoo ñëwaat seet kii di Serigne Cheikh Moussa ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ay ponk waaye tàmm nañ ci lu mel ni euh, jafe-jafe ñu nga xamante ne ñenn ci góor ñi wala ci jigéen ñi dañ koy jànkonteel ngir am. jëkkër wala am jabar nañu waxtaanee tamit euh, jafe-jafe yu nga xamante ne euh, ñoom ñooy am souvent ci biir euh, famille ci biir néegu sëy yi waaye nañu waxtaanee tamit ñu nga xamante ne des fois dañuy am ay problème wala dañuy jànkonteel ay problème ngir am ay doom Serigne Cheikh Moussa maa ngi lay dalal ci Kéwoulo TV di bàyyi la nag nga nuyante ak mbokk internet Kéwoulo yi. waaw <clears throat> asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Kéwoulo man la seen mbokk Cheikh Moussa. Euh, nekk fii centre médecine islamique al afia moo leen di wax jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla def ci yéen gannaaw loolu ñu ngi nuyu waa Kéwoulo yëpp fu nu mën a nekk di ci jiital borom kër gi Babacar waaye di ci tegit sëñ Fallou nga xamee ni moom sunu caméraman bi ak it Cheikh Alsaan waaye di nuyu it yow mi nga xame ni yaa nuy laaj ñuy tontu mooy ans di ñaan borom bi subhanahu wa taala defal nu fi ak taysiir ba li ngeen fi indi mooy waxtaan wi nga xamee ni moom nga wax léegi yàlla dimbali nu ba mu nekk luy jariñ adduna bi yëpp alhamdulilah. Euh, Serigne Cheikh Moussa bi nga nuyonte ak mboolem internet Kéwoulo TV ñu fas yéene rek euh, tàmbali waxtaan bi kon ni ma ko doon wax sànq léegi nii rek euh, dañoo fas yéene ci ponk mu njëkk bi waxtaanee ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñenn ñi ci xale yu góor ñi wala ci jigéen ñi dañuy faral di koy am ngir am. wala la jabar wala am jëkkër mm-hmm. lan mooy mën a tax ba des fois nga gis xale bu jigéen bi nga xamante ne ku jekk la mm-hmm. wala benn xale bu góor bu rafet waaye day am problème pour am euh, gel sax da koy të mm-hmm. waaw loolu li koy waral bari na mais li ci ëpp mbiri àndandoo la rek mooy mbiri rab bari na koo xamee nii la ko teree am jabar rab yu ko topp dong la bari na it koo xamee ne nii la ko teree am jëkkër mbiri rab dong la loolu dinañ ci ñëw ci biir ci façon yi rab yi ak ci façon yàq yi ndax am na koo xamee ne nii ni nga ko waxee du gis sax ku bëgg du gis it ku ko bëgg loolu daf koo tëj am koo xamee ni it gis na bëgg na kee bëgg na ndaw si bëgg na ku góor ki bëgg na waaye balaa yàgg rek ngoro ga yàqu loolu day am ci ci ñi am rab nga gis koo xamee ne ni moom day ngoro bëggante am waaye day xëy xëy rek ñu ne maye nañ ko wala waaj ji am na jëkkër am na jabar loolu yépp ci biir waxtaanu diin ci ñëw mu bari lool nag ci jamono tey xamee ne nii toll na ci am jabar mais yor ko doonu yorul de yor na ko lenn lu nu mën a wax ni lii mooy sikk suwaa ji kenn gisu ko parce que nit it mën na am yor ko te am sikk nit ñi am dut ci moom mais lii ñuy waxtaane du mbiru jikko lu ko topp la parce que nit mën na yor jikko nga xam ne kii jikko ji moo tax amul jabar walla jikko ji moo tax amul jëkkër loolu loolu loolu yaakaar naa ne leer na waaye li ñuy waxtaane mooy nit ki nit normal la li war ci nit yépp mu ngi ci moom bu dee ci wàllu jikko yi ju baax mu nga ca moom kon fu mu dugg war nañ koo mën a may jabar mii loolu moo ko të fu mu dugg walla ku dugg ci seen kër war na koo mën a takk mais loolu nekk ay jafe-jafe yoo xam dañ koy dund ba loolu dina tax yóbbi nit ki mu jaaxle sëñ Fallou ku am yii ma wax yépp mu daje ci yow te foo dugg wala ku dugg seen kër sëy bi du mën a taxaw ah loolu de wax boo dee nit dinga jaxasoo dinga jaxle waaye say kilifa it dina jaaxle ci yow dañuy jékki-jékki ni kii lu nekk ci moom barina ci bari na ci ay nit ñoo xam ne ci lii moom lañ topp am na ci ñi xamul nag ni day taamu. ñi xamul ni dafay bañaate ñi xamul ni ñii kii bëggul ci nit ba nit ka dem ba am 60 ans bu dee góor di jigéen du dégg alxayri du ko mas a dégg fekk na rabam moo ko téye te boo ko laajoon dina dem ba àgg ci benn âge dootul xalaat sax di sëy ci zahir mooy am jëkkër ak yooyu mais boo ko laajoon ci baatinam moom day mel ni boroom njaboot la mais <laughs> dafay mel ni am na jëkkër dafay mel ni am na nay doom loolu kon xam ngeen ba tey ci baatin la di n'est-ce pas mooy day feeñ ci ay géntam tout le temps day mel ni mu ngi jëkkëram tout le temps mu ngi mel ni dafay am ak moom doom ndeysaan loolu moo ko waxee rek sama xel am ku ma <laughs> ma dikkal fan yi passé mu ni jabar ji ma ne maa ngi sëy waaye am naa beneen jabar de mais gisoo ko ay junne la de mais am naa ak moom ay doom jabar ji ne ma ndax loolu mën naa ne ma ne ko mën naa nekk kay kii nekkal loolu nekk ba mu wax la ko nga ne mën naa nekk <laughs> yow kay léegi yow def nga may laaj <laughs> as yow nga sa jabar jékk ba ca nga ne ko yow yaay aaw bi waaye kii mooy ñaareel wala nga ne ko keekan mooy aaw kii mooy ñaareel dinaa fa ji nag waaye du nit jinne la am naa moom doom nag jaboot nan as loolu kay am na wala amul am na ah. am na waaye léegi nit ki nan la war a def foofu am na de waaye baaxul ñu baree ngi fi ay yor seen yëfi maam yi <laughs> bokkaale ko di dox fekk na ñoom lan àndal loolu nag en général fu ngeen ko gis rek am na yarabu cosaan wala mu nekk góor gu góor yu xam nga góor gu góor yu gu nekk jantal wala jongoma lool jigéen loolu it xam nga li ma wax bëgg a wax wala maanaam jongoma xam nga jongoma miis <laughs> miis ndëgg dëgg am jabar am jëkkër yomb ko de am de bu tëbee ba am jëkkër yàgg ci sëy dina ko jafe de miss miss lépp ko bëgg junni yooyu nag ñëw ko gën a bëgg olof yi lu naan wax sëñ fàllu jongoma ñàkkul daa ko waale loolu <laughs> lu ko waral jongoma lan wax waxuñu jigéen de moo jigéen bu mu nekkee jigéen àgg ca kaw xees macha allah wala mu nekk yor maanaam yenn melokaan yi oh junne kilifaa koy topp de billaay ko ko takk kilifa ngay doon. kalaasu sëñ Fallou gi donc nga mën a ñëw ni ko xuux mu daw <laughs> ñu dugg sinon ku ko dugg de ku koo takk de wala bu dee ministre nga woon dina la dàq wàccee la balaa ñaari fan ñett nga dugg wala nga def benn njombe boo xamee nii te moo la ci dugal <laughs> faw rek wala mu. porte la nga ngay feebar nag feebar rek feebar rek ndeysaan loolu it bu ma koy egsi ci suba benn jigéen dafa ñëw consultation sëñ Fallou xam nga lu ko jaaxal moom non seulement moom waa ji mënu ko koo takk <clears throat> mais problème bi mu am mais moom dafa am ay difficulté moom ndaw si mais beneen deuxième problème bi mooy waa ji nga xamee ne copine lañ koy tuddee wala copain copain bi loolu ngeen koy terme yooyu ngeen di waxee ñun nag ay kaw kaw lan ah, danaan faram wi la ñuy wax moo gën a gaaw <laughs> waaye léegi faram bi ko daan dimbale léegi dafa jàpp léegi business am mu yàqu ko wàññi am amam nee na moo déedéet waaye mu ni ñetteel bi nag nee na nag mu commencé koo feebaral ba waa ji nag jékki-jékki seetlu ko ma ne ko ah suñu diggante est-ce que duñ arrêté te ñoom ñaar nee nañ kenn gëmewul sa morom léegi nag danoo nekk ci naxanteeg jinne ji waa ji nee na bàyyi na bàyyi na noo de ci kaw <laughs> bi ma enquêté ci biir nekk kenn bàyyiwu ci mais jinne ji leen bëgg a xam nga séeréer ba da koo defoon ba doom ja feebare mu nax bëgg a nax yàlla <laughs> ni yàlla <laughs> ay sama doom ji billaay boo ko bàyyee bu wéree dootu ma ko sàmmloo <laughs> dinaa ko yóbbu mu jàngi alxuraan da bëggoon a ndax yàlla <laughs> moom bi ma waxee ba ne ko yéen ci dil ngeen nekk bëgg a ndax jinne ji as lii yéemewul <coughs> te bëggante danoo bëggante mu wax ba yàgg ma ma di ko ñaanal mu ma wax léegi sama waa ji ba dina ñëwaat ma ne ko yow talal sa bopp xam nga li la indi lii ngay tal waaye bul tal waa ji ma ne ko ku la bëgg du la bañ bu mukk billaay bu la tëkkul man ngaa dem ba mu tudde la doom sax ndax day am loo xam yàllaa koy dogal mu bëgg waaye ku la bëgg mu ne ma wax nga dëgg de man de kii bëgg na ma dama bëgg man sama xol ma ne ko nag da ngay gëm yàlla bu yàlla dogalee mu war laa takk kenn mënut a tee la takk mais bu ko dugalul seen relation mën naa dem ba ëllëg mu ah nga doon ne doomam waaye loolu loolu mu ne mu xel mi daal xam nga ñun suñu liggéey bi léeg-léeg da ngay wàcce nit nit day monté ba boo ko wàccewul rek problème yooyu du daanaka dootul xam la muy def. mu ne ma wax nga dëgg. Mm-hmm. incha allahu dinaa doy loolu li nga wax. kon di nga gis koo xamee nii problème mooy ngoro gu mu am mu yàqu ngoro gu mu am mu yàqu te am na mën na bokk na ci famille bu baax. boo xamee ne ni wax dëgg yàlla ñëpp wóolu nañ ko kooku kay war naa mën a am jabar te yor weccet wa defar këram ba mu nekk mais munta am jabar ñoom la fan yi passé donc waxtaan yi dina tax ma expliquer ko dafa benn xale bu jógee moodu moodu mu ñëw <clears throat> ma di ko ñaanal su ma ko ñaanal rek day jékki-jékki di yëngal loxo yi rak rak rak rak boole ko di di reetaan mais problème bi am mooy am na këram te nit ku social noonu man gëj naa koo gis ci maanaam nit koo xam ne dafa bëgg mbokkam bëgg e, ko ci feebar moo lay taxaw faj joxe nii rek mais bëgg jabar mu tëkku mu ñëw ma di ko ñaanal bu ma koy ñaanal mu ne ma Cheikh Moussa waa jabar moom man fu ma dugg ñu ràq ma <laughs> wallahi la azim nii la ma ko waxee ma ne ko dina baax dalal rek talal sa yaram ba pare mais motul fukki fan ak juróom ñaar ñaar fukki fan ak benn fan yii leen ko war a may jabar man ko alhamdulillah mais bi ma koy ñaanal gis ko muy reetaan ba pare di yëngal loxo yi su paree ni ma mais monsieur Moussa li may def normal ba may mocc may reetaan ma ne ko du reetaanoo xam nga ne reetaanoo mu ne man koy reetaanu ma mais lu may reeloo ma ne ko sa saay-saay bi la dafa am lu ne ci yow di la baare di la baare ba mu fa jógee la laan demee mu ne eh, sëñ Moussa de li ma la doon wax gis nga ñëwati na ma ne ko lan mu ne ma xale bi ma waxtaanal ba mu ne ma waaw ba mu ne ma waaw génnaat nañu nee na déedéet <laughs> ma ne ko muñal te nga faj sa yaram rek te topp mu toogaat 15 jours mu ne ma sëñ ah, Moussa bi sangam deen ma may jabar juboo nañu ma ne ko jeex na fekk na li ci yaramam xam nga léeg-léeg dañuy def dañuy def ci kanamu nit loo xam ne ni buñ la xoolee rek. sib la loolu ci image lay nekk am na yoo xam dañ koy def ci làmmiñ bi soo waxee da ngay soof ki ngay waxal kooku mu rejeté la dafa yomb moo tax bari na ku ni bañ naa la te bañu la la nekk ci moom moo ko waxloo poussé ko ko. su ma la comprendre mbir mbirum jinne wala mbirum rab mën a tax ba euh, ab góor nga xamante ne booy bu jantal wala benn jigéen nga xamante ne bu jong maa comme ni nga ko waxoon sànq léegi nii mu tax ko mu am euh, jabar wala bu tax ko mu am euh, jëkkër mm-hmm. waaye leneen nga xamante ne bëgg naa la ko laaj mooy est-ce que tamit du ab liggéey mm-hmm. par exemple benn xale bu góor bu nga xamante dafay génn ak beneen xale bu jigéen mm-hmm. ñoom ñaar kenn ki wala moromam liggéey ko ba kooku noonu su demee ba bu kaa bàyyi ngir takk keneen mu tax ko maanaam li nga mooy ñaar ñu bëggante. <clears throat> ñu dem ba ci biir am ku leen tàqale ndax njibar loolu dina am rab day def loolu mais njibar it day def loolu fii moom sëñ Fallou ñoom ñi xam nañ ko bu ñuy ngoro la ñuy njëkk def rek mooy Cheikh Moussa jàppal ma ndaw si jox ko tourné <laughs> ba bu ñu bañ leen a rëcc loolu moom njibarante bi moom du jeex waaye comme <laughs> thème bi du thème bu njibar <laughs> te bu rab yi la loolu nit da koy def dafa am loo xam ni junnee koy def am loo xam nit koy def. mais nit ki la muy def ba nit ki mën a njabar nit junne ku koy defal am deet sëñ Fallou kon lépp jinne la di <laughs> voilà ans loolu leer na man su ma mënee jabar ans ba tàqale ko ngorom gi man maa ko mën naa ko waaye la tax ma di ko def mooy jinne laay sant liggéey ba yow yaa ma sant ma di ko def mais jinne laa koy sant mu defal ma ko leer na fekk dama am ay jinne mhm. waaye daal ci gàttal ci puy boobu ñu tëj ko mooy bari na ñoo xam ne seen yaakaar di tas ci wàllu jëkkër ak jabar war a takk ngoro yi li koy yàq yu bari ay rab dong la waaye comme ni ma la waxee nii nit ku ca toll man ko bokk fu baax war a mën a yor jabar te fu mu dugg ñu dàq ko baa xam nga ni am na ci ñoo xam ne nii façon bi ñu yore sax moo gën a yéeme as day gis kenn bëgg ko di ngoroon teeg moom dangay ngay xëy xëy ñu maye ndaw sax xëy xëy rek te yow as def na lu mat juróomi jigéen lu mel noonu fu ngoro rek <laughs> kooku dañ koy takk ba jigéen ñi am nañu ko seetlu ci quartier yi bu ko defee ku ci bëgg a jar lamb <laughs> day ñëw as toxaan bu ko as toxaanee rek ay fan ñu maye ko <laughs> loolu loolu dafa am ci ay nit ñoo xam ne li la topp la pour sa xol yow as ngay gën a tàng nga bañ jigéen ñi nga ni jigéen ñi ay workat lan te fekk na walaay du ñuy workat ñu baax lan mais li la topp la yow sa rab moo bon te it dalay yàqal ba pare bàyyi la xol bu bon jaxasala ak nit ñi est-ce que as kon doo amati problème am nga problème mu am jabar ba pare am problème mu naqar ak nit ñi nga séqal mm-hmm. nit ndaw si warati na ma moo tax ko am rab bu nee ma nit ke diw damaa war ma ne ko bul waxati loolu kenn doo war waru la de sa sa junne yi la yàqal mu ne wax nga dëgg am de sëñ Fam xam nga ku yor ay rab xam ni moom lépp luy njariñam kum ko séqal junneem dina ko yàq waaw est-ce que war ngaa waxati nag dan maa war dangaa war a wax sama junne ji yàqal na ma loolu mooy di ko defee sa xol xaw a fiix nga bàyyi nit ki xam ne du ca nit ka léeg-léeg nag nga gis ku baax ku comprendre ni moom li ko yàqal ndeysaan benn jigéen daa jooy ni ma li may def yàq di ko wax xam naa ni man du man su ma digguwut ak yow wala digguwutuma kii rek sëñ Fallou mi rek du ci yéen li ma àndal a soxor moom may dëddaleeg nit ñi moo may jaxaseeg nit ñi kon diw daf ma wor nañ ci teey bari na ñoo xamee ni nii seen rab moo bon nan xoolaat seen bopp ah sëñ Fallou koo xamee ne nii ku mu ngoro ñooña da waaw waaw waaw ba ci biir ñooña génnaat nga ni damaa wor keneen takk ko fekk na yow sa rab xam nga ni moom la yow bi ngay dugg sax yaa ngi naan ngoro gi du dem kon yow sóoraale woon nga ko lu tax nga sóoraale ko mais sóoraale ko ci nit ñi mais da koo sóoraale ndax sa rab bi nga àndal leer na wala leerul. leer na nañ kon ndaag bu kenn mere benn nit booy jëflanteel boo yoree rab bul mere kenn. mais nag bu fekkee ni nag yoroo rab loolu nag ñu seetaat nag nit ki ak nit ki li may wax nag mooy ñi yore rab mais nit dina war nit moom na leer nit dina war nit waaye ci cadre ki yore rab mu xam ne rabam da koy yàqal bu mu jiiñ nit ki nekk ko jiiñ ay rabam te xeex ak moom bu dañee rek incha allahu dina am jabar su dañee dina am jëkkër loolu leer na kon ñu dugg ci deuxième nañ comme ni ko waxee na am na ñu nga xamante ne ñu ngi suivre te ñuy dund situation bi ñu mel ah, boo leen fekk na yéen a ngi dund euh, situation bi nga xamante ne bi ñu mel comme Serigne Cheikh ko doon euh, expliquer sànq léegi nii rek mm. mun ngeen ñoo seeti ki nga xamante ne moom mooy di Serigne Cheikh Moussa mu ngi fii ci pharmacie PA yi ñu bari euh, jànkonte na ay jafe-jafe ñu ñëw gis ko mu indi lañ ci ay saafara yéen tamit bu fekk ne yéen a ngi jànkonte jafe-jafe yu ñu mel mun ngeen nekk ñëw seeti ki nga xamante ne moom mooy di Serigne Cheikh Moussa Serigne solution dinañ tey indi ay saafara Serigne Cheikh Moussa dañuy jàll ci beneen euh, ponk bu fekkee ne euh, ab góor wala ab jigéen dina am ay jafe-jafe ngir am euh, jabar wala ngir am jëkkër am na ci ñu nga xamante ne ñoom am nañu jëkkër wala am nañ jabar ba pare ñu ngi ci ab néegu sëy waaye ci biir seen sëy bi dañ si jànkonte ay jafe yu bëree bëri mm-hmm. ndax loolu ab mbirum diine wala mbirum rab rab mun naa mun na ko tamit indi ay jafe-jafe ay jafe waaw loolu sax mooy deuxième point bi mooy ñu baree ngi fii bu nu sotee ci am ba am jabar walla am jëkkër dugg ci mariage deuxième xeex ba ñëwati na mooy bloqué na la pour bul am yàlla dogal blocage ba deñ pour nga am ñu toppaat la ni la sëy bi du neex walla sëy bi du yàgg a sëñ Fallou kon ñii lii fu ñii fu nu toppe xanaa daaru la nu toppee <laughs> walla Boora toppe toppee nañu Boora wala Fatick am déet xoolul ma lii tëb nga bib étape fu ne nga ñaan lu fa ba yàlla def nga dugg ci néegu sëy ñun la sëy bi du neex xaj ak muus xaj ak muus xaj muus ba xëy-xëy boo nee la boo tëddoon guddi ñun la di wàcc na di du la bett est-ce que looloo tax ñuy ànd couple looloo tax a jóg déedéet jàmm ak salaam mawaddatan wa rahma nabante ak yërmande looloo tax a jóg sëy mais loolu du am ci boobu moo tax da ngay gis sëy boo xam ne nii xaj ak muus rek la fu mu toll ñu ngi xuloo ñu ngi ngaayoo kenn mënta déglu sa morom kenn mënta déglu sa moroom loo wax aw ay lu kee wax aw ay ci kii am na ñoo xam ne nii duñu wax waaye bu nu gisee seen jabar wala ñu gis seen jëkkër seen xol yi day tàng jër di bax duñ bëgg a wax ak moom duñ mën a def ak moom duñ am plaisir sax tëdd ak moom jaamu sax duñ ko bëgg a def ak moom te seen xel mu nga ci keneen wala ca leneen ndax ku ñëw war a wàcc big si soxna sa tàng ca moom est-ce que di nga mën a jige sa soxna loolu du am kon nobel ga ak mbëggeel ga foofu la ñuy jël remplacer ko te boo nekkoon loo mere sa jabar mun la dama koo xam defu ma de boo nekkoon loo mere sa jëkkër mun la ma dara lu ne la may defal mais man daal bu wàccee rek dootuma am jàmm sama xol bi day tàng jër ci moom waaw duma ko bëgg a gis lu mu wax ma xëpp ci kaani sama jëkkër dafa baax waaye kon nëgëni wàcc na ma bu yàgg de yàgg naa koo dégg man nag wax dëgg yàlla maa am problème sama jabar de ku baax la mais man maa lu ma àndal loolu da ngay dégg kuñ toog fii wax na ko ku toog feneen wax ko nit day nu xam li ko jaral mu dem saafara wuti lu ko lu ko solution mais ñu bari ci ñun nag ndeysaan danoo xamul moo tax li nga bande annonce bi ngay njëkk dugal ku rab jàpp barki dem sëñ daara damaa woo <laughs> benn sëñ daara ni ma bi ma dégloo li nga wax ku rab topp man daal sëñ daara laa mais xam naa ne am na lu ma topp <laughs> ma ne ko lu tax mu joxe ay quelques mandarga ba pare léegi daal moom alxuraan bi ak tur yàlla su ma koy def rek dina law wallahu akbar ma ko alhamdulillah yow la seytaane yi seet yéen ñiy jàngale alquran di góorgóorlu bëgg lu baax bañ lu bon non bu ngeen bu ngeen leen nareew jëm féete kaw rek faw ñu jëm leen a narmeel xam leen loolu mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko del taxaw ak bàqara bu baax di ko jàng soo ko dee def de bu soobee yàlla ah? te góor góor lu fogu loo gis lu la jaaxal nga góorgóorlu dañul incha allahu boo ci taxawee sunu borom léegi mu dimbali la mu ne ma wax nga dëkk kon xol bi muy tàngal jaxase ak sa borom kër wala jaxase la ak sa sa sa jabar vraiment te yow yéen ñëpp loolu nekkul ci yéen bu ngeen wanantee ginnaaw rek loolu jeex na kooku nga xam ne kon seytaane moo dugg ci seen néegub sëy bu boobaa teel koo xam nag jóg ci parce que wax dëgg yàlla nit ku dul mer amul waaye kuy jàpp dëkk ci mer it baaxul kon nag koo xam ne nii mer fa nga war a mere loolu lu jaatu la waaye sa borom kër ñëw nga war koo bégal war koo tatagal sa jabar ñëw nga nekk fa war koo may jàmm munu non loolu nga xam ni lii feebar la feebar la bu boobaa nag nga teel cee jóg ba nga xamee ni seytaan yi loola daloon ca ngoro ga walla it mu dab la amoo problème boobu waaye takk nga ko ba ci biir nga gis ni kii kat ngeen waxtaan mun la ah man de bu ma la gisee sama xol bi day tàng te man defoo ma waxoo man ne jaay loxew xew mun la ah nag man de pourtant man it de man su ma la gisee man damay mer di xalaat ci yow xalaat yu bon waaw xam nga loolu it moo gën a garaaw ndaw soo xam ne nii seytaane bi mu àndal danaa ko sant yaay day doxaan ans day doxaan ans day doxaan def ko ci xel mu di ko doxe bu yàggee mu waxee ko loolu mënut a tas kër mënut a indi ab ànd sa jabar taxaw nga ne kii day farantu te doog ko wax de mais sa xel a ciy nekk te xel bu ñaaw dong la sipson xam nga sipson te amu piste yoo yow di tax nga ni kii sipsone naa ko nga commencé ko di ko mu feeñ ci yow sa comportement bu yàggee nag problème bu tuuti am rek nga wax ko ko say bayam fa kon dana def attention ci suñu nekkin nga xam ne daal ñoom seytaane yi junne yi bëgguñu benn yoon sunu nekkin ñu nit ñi mu neex déedéet suñ sañoon daal xiiroo ngaayoo rek wanoon te ginnaaw loolu ñëpp nit ñëpp buñ sañoon loolu lañuy ñuy mel waaye nan ko xam bu ko defee ñu dal te tey te ñaan borom bi subhanahu wa taala képp ku nu àndal yàlla def déggoo am ca waaye ak juboo am ci ab àndkat juboo de caa neex lool ak déggoo waaw loolu nag boo defee buñ ci bàyyee xel rek incha allah seenug yàq dina wàññeeku baraka la dernier bi waaw dañuy jàll ci dernier point bi ndax mhm. waxtu bi dañoo xoj mooy euh, euh, li nga xamante ne ñi nga xamante ne euh, surtout ma jigéen ñi mhm. waaye tam am na ay góor tamit ñi nga xamante ne mën na leen dab mhm. ñi nga xamante ne dañuy nekk ci bu néegu sëy waaye daf leen di jafe trop ñuy am ci doom te ñëpp xam nañ ne mm. euh, képp ku nga xamante ne da ngay sëyi mm. euh, li ngay xaar mooy nga am ci euh, tout temps nga am ci tout temps nga am ci njaboot waaye dina am ñi nga xamante ne nañu sëy ay cinq ans ay vingt ans mm-hmm. ba da leen di topp ñu am doom doom dëgg la loolu it junne yi rab yi dañ koy def te loolu yi léegi nag moom loolu moom yomb naa xam sëñ Fallou sëñ Fallou bu njëkk ni naan di nit naa daa jaasir fekk na daa amoon ay feebar dong la muy góor di jigéen tey loolu dàqul kon nit ñi tey leen war a gën a mën a am doom ndax mat xam-xam yi yàlla def tey ci kaw suuf muy góor góor bu njëkkaan bu euh, sperme amee problème ku ko daan xam en tout cas yéen ko xamee sëñ Fallou hmm. tey li kon gis nga suñ suñu jamono tey li yàlla def muy xéewal dama koy tudd ngir ñu santaat yàlla ndax li nu am mag ñi amuñu ko woon tey jigéen joo xam ne ni daa jaasir fekk na fi borom dong nga nekk ci biir ba ak ay kyste moo ko teree am doom ak trompe yu bougé tey yii <laughs> loolu dàquwul nga gis koo xam ni loolu dong la waaye bu ñu koy traité mu am doom loolu xam nga ni kon loolu du problème tey dama jàpp sa laaj bi laaju mooy junne yu seytaane yi ndax dañuy téye biiru jigéen pour mu bañ am doom wala dañuy téye ndigul góor ngir doom bañ a am. loolu effectivement loolu la parce que tey ak avancée euh, médecine moderne moo am macha loolu normalement war na waroon na waroon ko dépassé laaj bi am solo xam naa dañ ciy junj rek beneen yoon bu ñëwaatee àggale ko ndax waxtu wi daanaka dem na mooy jigéen ñu baree ngi fii ñàkk am doom te junne yi ñoo téye seen biir ci ñaari anam téye biir ba ëmb du am wala téye biir mu rëcc ëmb am ñu avorté la ñaar yépp am benn baaxu ci nag da ngay gis ku sëy 5 ans 7 ans 10 ans mais danaa la man mënumaa fexe ba am doom lu tax mun la man avorté sax suma koo def njii la man avorté naa la cinq fois 7 fois mënuma am doom lu tax mënoo am doom mu ne man fu mu ëmbee damay gént sëy bu ma xëyee rek walla ñaari fan ëmb ba yàqu walla man bu ma tëddee guddi dafa am lu may dàq bu ma dàqee ba ma sonn xam nga ëmb mu ndaw doo sonn nit koo xamee nii dan la boo xasee ëmb ëmb mu ndaw da ngay yénn yëngatu yéeg dan koy tere léegi imaginer koo xamee nii sëñ bi dàq nañ ko Thiès ba Dakar ci gént gi amul ko ko wallu te fekk jigéen ju ndaw la mu yeewu ñaq tooy xib sëñ Fallou mu yeewu di appaat mu yeewu sonn sonn goo xamee ni nii mosu koo sonn ci àddunaam kooku mënut a ci loola te yii yëpp ci sëy la nekk moo tax lu kii la da ngay noté foofu bu ñëwaatee ñu gën ci xuus ndax waxtu wi mat na. Mhm. kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla di la gërëm di leen sant <coughs> di ñaanal yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla na nekk lu ñuy jariñ waaye lu ci njumte ñu ngi koy jéggalu di ñaan yàlla subhanahu wa taala <coughs> lu ci jub ñu sant ko borom bi lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu yàlla di leen ko jéggalu seen mbokk Cheikh Moussa moo leen doon defal waxtaan wi. kon ñu ngi leen di jox di daje ba beneen yoon incha allah. <laughs> mu ngi noonu waxtaan bi neexoon na trop te yaatu waaye dañ koy tënkee fi nii rek euh, ñuy jox euh, ndig daje borom euh, mbokku internet Kéwoulo TV ba beneen yoon incha allah.